ce que attendent les Thiessois boo gisee ñu engagé woon ci coalition Diomaye yi ce qu'on attend de du nouveau régime du ay mbir yoo xamante ni dañu koy defal à titre li ñu bëgg mooy Thiès que Thiès retrouve son lustre d'antan mm-hmm. Thiès dafa amoon chemin de fer muy dox Thiès am NSTS société textile société textile Thiès am ay entreprise nit ñi di xëy 7 di liggéey Thiès amatul loolu yëpp mm-hmm. Thiès yi fa am léegi mooy transport Jakarta avec tous les risques et périls Thiès li fa am mooy jaay Café Touba Thiès li fa am mooy jaay Wóoch loolu la ñu bëgg mu jeex Thiès li ñu bëgg mooy ñu mën a euh, influer suffisamment mm -hmm. sur la gestion du régime pour mën a capter pour mën a capter ay investissement ñu ñëw Thiès pour que Thiès mën a dellu fi nga xamante ni moom la Thiès nekkoon en termes d'infrastructure en termes de euh, d'embauche ah pour régler le surtout le problème du chômage des jeunes. Mm parce que nit ñaa ngi wax waxu terrain eh, di coow. chômage à Thiès mais am na benn phénomène bu extraordinaire lu xew Thiès loo xamante ni nit ñi bàyyiwuñ ci xel. Mhm. l'insécurité. l'insécurité Thiès actuellement on en parlait plus la banlieue non non non ce qui se passe actuellement à Thiès c'est c'est c'est c'est extraordinaire c'est l'occasion de saluer mon ami euh, l'adjoint au maire Baye Serigne Samb nga mhm. xamante ni mu ngi def un travail de sensibilisation extraordinaire Thiès jour dañ lay dañ lay agressé le week-end quand tu viens à la promenade des Thiessois mbedd boobu li fay nekk man maa ci teg sama bët mhm. des fois ñi may toogal dañuy wax ni ma maire bàyyil ñii lii noo ci dara des enfants qui n'ont même pas encore quatorze ans ñooy agressé def ay groupe de vingt di agresser des gens. comme les moustiques en Côte d'Ivoire. mais des, des groupes de vingt. et je crois que loolu war nañ ci jóg. Euh, le euh, mais qu'est-ce qui est à l'origine de ça. précarité. précarité bi ak teel a bàyyi jàng école bi. Mmh, abandon scolaire et puis ak Thiès est devenu un carrefour c'est-à-dire que li ñëw Thiès di fa nekk surtout les enfants de la rue da ngay gis. Mmh. dans tous les quartiers. mu am ay nit yoo xam ne dañ jékki-jékki jógee dans des pays limitrophes. Mhm. indi une vingtaine une quarantaine d' doo xam ne ñu def ba indi leen ñu ni dañuy ubbi daara di jàngale. alors que ci koñ ba am na ay daara yoo xam ni mhm. reconnu ay sëriñ yoo xamante bi nii ñu ngi jàngale ñoo xam aussi ñu ñoo xam ni xam nañ leen mhm. comme ni mu amee woon ci suñu koñ bi ñu nekkee xale mais ñii dañuy ñëw ñu ni dañu nekk ci daara di jàng mais duñ jàng ils tout le temps dans la rue devant les restaurants ñu demee ba am ñu alxuraan mais se retrouve dans la rue forcément mm-hmm. et yooyu bokk na ci source d'insécurité yi nga xamante ni ñi nekk naa Thiès uh-huh. heureusement le gouverneur actuel que je salue au passage muy notre frère Omar Mamadou Baldé qui avait fait un travail extraordinaire lors de son passage en tant que préfet à ne woon dina convoquer les assises de Thiès sur la sécurité malheureusement la campagne électorale moo ñëw xaw ko déplacer un peu mais dinaa ko bu ma delloo Thiès dinaa ko relancer pour que mu convoque ko le plus rapidement possible pour que tous les acteurs à Thiès Bajenu Gox Serigne Daara euh, mouvement des jeunes euh, mouvement citoyen force de l'ordre que ñëpp toog pour que ñu jéem a xool nu ñu régler cette question de la sécurité. Ah, et l'emploi des jeunes à Thiès parce que euh, aussi bëri na ndaw bon bu ma nee ndaw waxuma peut-être les les plus jeunes ah mais ñi jàngi ba pare ñëw toog. defuñu dara xëy na ñoo jublu ci jakartaay après wala yu mel mais loolu aussi Thiès la vie depuis depuis assez longtemps euh, par rapport aux promesses de campagne du président nee nga ñëwoon na fa vous avez parlé du foncier mais pour euh, l'économie relever l'économie wax nga chemin de fer c'est une bonne chose NSTS baax na mais est-ce que amul yeneen yu ñu a piste yu ñu mën a explorer pour xool peut-être nu nu relever la la du rail. xam nga la politique moo mais souvent au lieu ñu jël fa nit ñi nga xamante ni mooy ñi nga xamante nii jàng nañu amay ay diplôme dañuy préférer des fois ñu jël ay militant pour recrutement politique ce qui fait que yow soo ñëwee tu peux plus absolument euh, doo mën a jël mm-hmm. y a des ressources humaines extraordinaires à à Thiès moi j'en connais le fu may toog à R100 garage taxi mm-hmm. boo yi may toogandool di naan café foofu noonu ay ingénieur agronome ingénieur hydraulique jeune diplômé ingénieur aéronautique mu ngi mm-hmm. foofu mm-hmm. mais booy bi ñu xëy dañuy ñëw toog def seen culotte boo leen fa fekkee nit mën na leen fa fekk di leen yoon mm-hmm. yónni ataaya alors c'est des ingénieurs yu jàng ba pare toog ñu dara pendant ce temps dans certaines entreprises nationales et sociétés ñu ngi fa jël des ay nit yoo xamante nii dañuy politique amuñu aucune qualification mais comme dañu daan politique topp yenn politiciens yi bu politicien bi faloo nécessairement da leen jël bi yóbbu leen foofu yooyu la ñu wax ni dafa war a daj ci dëkk bi. Mhm. je crois que dafay commencer d'abord euh, par ñun parce que bu fekkee nit ñi ay patriotes lañ dañu bëgg Sénégal cest à que boo demee bay jël ci noonu ngay def man de en tout cas bi ñu mën falee maire c'est ce que j'ai dit j'ai dit que aucun membre de ma famille ne travaillera au niveau de la commune de de Thiès et fekk naa fa nag ay nit. ñoo mhm. xamante ñu bëri am na fa ñu am njariñ am na fa ñoo xamante ne amuñu fa benn mhm. njariñ. mais ils ont mais il va falloir mais yokk la mal bi nga fa fekkoon déjà mm-hmm. am na ñoo xam ne mënuñu ko comprendre te dinañ la mere. yi diroo diroo ko maire ñoo àndoon ak moom <laughs> campagne mais moom campagne ba léegi jëluñu ñu. chaque jour des gens m'appellent monsieur le maire dama bëgg liggéey dama bëgg lii yow sa xol dafay tooy parce que soo sañoon ñooñu di nga leen wutal fu ñu dugg. Mm-hmm. mais t'as pas la possi t'as pas cette possibilité là mais nous espérons qu'avec le nouveau régime il y au niveau des entreprises nationales et un peu partout. Mhm. pour que ñu xool ñi nga xamante ni ñii ñoo occuper les postes de bu fekkee ni ñi fa nekk du ñoo xamante ni ñoom ñoo fa war a nekk ñu xool ñi fa war a nekk parce que je crois que un pays loolu moo ko mën a construire.